ixwatal iman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jullit yi ñi ngi doore suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa taala di làqatu ci moom di muslu ci moom di ko ñaan mu muccal ñu ci iblis mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi di ko sant ka delo njukkal sante go xamni dañ koy door rek wante xamuñu fan lay yam xewal ye bari ba xamuñu lu mu toll buñ ko doon jema limitam duñ ko mën pek motax moo ne ñu wa in ni'matallahi la tuhsuha taranga bi nga ak sa morom xeyna mun nga ko wañi mais bi la sa boroom defal daa bari xamuloo nu mu toll moo tax soo ko doon wàññi yàlla nee na doo ko mën a peek moo tax baatu alhamdulillah nekk obligation nekk farata ci nit mu di ko tudd ci làmmiñam xolam di ko yëg ay cëram di ko jëfe alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi lazi bi nicmatihi tatimu salihaat delloo yàlla njukkal moom mi ñu may ñu fekke woon daaw mu may ñu ñu fekke ren ci diggante bi am na ñu bari ñoo xam ne fekke woon nañ ko te actuellement nii suuf mi ngi leen féete kaw am na ñoo xam ni ñu nga tëdd ca lalu tawat ya feebar am ñoo xam ni sax ñi ngi ci kaso yi ndax ay tolof tolof kon bu ñu fekkee tal am wér delloo borom bi subhanahu wa njukkal ne ko nag alhamdulilahi ala kulli xaal bu ñu feebaree ñu ngi lay delloo njukkal bu ñu wéree ñu ngi lay delloo njukkal bu ñu amee ñu ngi lay delloo njukkal bu ñu ñàkkee ñu ngi lay delloo njukkal bu ñu kontaaneek bu ñu kontaanul ñu ngi lay delloo njukkal mooy alhamdulilahi ala kulli xaal julli salmal ñaanal suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu sang boobu nga xam ni moo tax ñu civilisé civilisation ci islaam rek nga koy fekk civilisation ci jullit piir ngay fekk mu civilisé te loolu ki tax ñu am ko mooy sunu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo ñu génnee ci lëndam indi ñu ci leer ki tax ñu doon li ñu doon ñun jigéen nag ñun ñépp war di delloo yàlla njukkal ñépp a war roy sunnay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ñun jigéen kenn waruñu caa jiitu ñu ko sama yaay di waxee à chaque fois ma koy wax li muy wax rek jigéen ju ndaw daawul dogal amul cëram xanaa di gas di suul di jaay moo doon cëram islaam ma ñëw jox ko cëram tafal ko daat koy teral yëkkati ko ñu naw ko kon grâce à islam ñun jigéen moo tax tey li ñu am ni ñu mel bët bi ñuy xoolee islaam moom moo tax kon ñu ngi delloo njukkal itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal mucc ak xéewal yàlla defal ko ko ñaanal gaa ñu baax ñi nga xam ne ñoom la àndaloon di ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw lu ñu defoon ko ci diine boo yaakaaree ni def nga ci diine ba jeexal nga tabax nga daara tabax nga école bënn nga teen yóbbu nga ay nit màkka am na solo de mais ñi fi jiitu woon li ñu def ñun duñ ko def dañ cee defoon seen temps defoon ci seen doole defoon ci li nga xam ne moom mooy seen alal mais li gënoon cher ci ñoom muy seen bakkante ñun ñu bëgg ko lool dañ ko doon joxe ñoom ñamale dund rek ak dee ngir baatu laa ilaha illallah jëm ci kaw muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam ko topp ko roy ko kon saxaabatul kiram ku dul ñoom ñoo la gën ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla sa mbaxtal yiw yi ci seen kaw ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuy islaam muy jàmmi yàlla yërmandeem barkeem yàlla na ko yàlla wàccee ci àdduna bi yépp nag def ko si réew yi ñu wër wàccee ko Sénégal mais gox bi ñu ñëw muy école bu mag bi nga xam ne day former ay góor ak ay jigéen surtout nag ay jigéen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla fi yàlla def tawféex def fi li nga xam ne mooy barke ñi fi génn yàlla nañu jëriñ réew mi yàlla nañ jëriñ seen bo seen bopp jëriñ seen i wayjur waaye nag seen diine ji di islaam duñ ko desal ginnaaw moom mooy nekk première yàlla nañ nekk ay nit yu conscient ñoo xam ni toujours ñi ngi bàyyi xel ne ñoom ay missionnaire lañ kon ñi fi génne ku fi génn yàlla na yàlla barkeel la ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal waa AMS nga xam ne chaque année ñoom ñooy taxawal yu rëy yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen uh, tawféex seydaa mat leen ñu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccuwaay di nuyu ñi nga xam ne ñoo organiser lii yépp ñu ngi leen di ñaanal yal yàlla defal leen jàmm li ñuy waxtaanee tey uh, mat leen mi ngi ko doon wax léegi moom mooy alxudusiya lil maratil muslima amaama shubakat al lil mujtama maanaam yi nga xam ni tey moo xew yi nga xam ni tey moo bees yi nga xam ni tey tey dañ cee dugg ba bu doon géej damay wax ni lab nañ ci dañ cee féey ba nuuru bu fekkoon ni tey loo xam ne lu ñuy lekk la day joxe feebar ñu bëri def na leen toxique mu ngi ci seen biir yaram di ci daw tey loolu la ñuy waxtaanee mu nekk tomb waxtaan boo xam ne nag lu ñu war di wax di wax toujours la ndax xale bu jigéen bi nga xam ni malheureusement moom mi nga xam ni moom lañu def tey benn banderole moom lañu def tey benn objet moom lañ def tey benn jumtukaay boo xam ni même boo ubbee sax yooyu di ci am loo ci soxla léeg-léeg ñu indil la koo xam ne dafa def yaramu neen di la ko présenté ngir nag tey bët bi nga xam ni foofu la ñuy xoolee jëmm ji nga xam ni moom moo nekk jigéen kon tomb waxtaan bu mel noonu waxtaane ko dafay am solo di ci teg ci taabal ji nit ñi di ci def di ci debaa dafay am solo ndax xale bu jigéen bi dellusiwaat xam ni dañ koy nax xam ni fi ñu ko dugal du foofu xam ni lu ñu ko gëmloo du loolu xam ni li mu nekk du dëgg xam ni fi muy fee géej la goo xam ni tefes ga mu nar a teer yi du ko neex moom ci boppam du ko arrangé du arrangé société bi du arrangé ay mbokkam islaam itam moom itam kenn waxaale ay waxam ndax nag xam ngeen ni islaam moo defar jëmm ji nga xam ni moom mooy jigéen mais pour dugg ci tomb waxtaan ba bu mbokk yi dañuy lay taayale suñu waxtaan ay aayaat yoo xam ni da fay wax ci jigen da fay wax ci doom adama wax ci nit en tant que tel ci ne borom bi subhanahu wa taala da teral doomu adama jox ko lu mu joxul kenn malaika yi dàq ko jaamu yàlla fuuf waye mu jël taranga tek ko ci loxoy doomu adama mais doomu adama ndaysan li yàlla wax rek laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim mais nak summa radadnaahu asfala safilin yàlla dafa yëkkati nit ba mu kawe ndax keroog bi muy wax ci xiwaaram bu rëy boobu maanaam réunion boobu nga xam ni woowul woon malaayika yi pour laaj leen seen avis mais daf doon jàngal nit organisation yàlla woowul malaayika yi pour laaj leen seen avis ñoom woowu leen pour laaj leen seen avi mais daf leen doon daf leen a woo pour jàngal nit organisation loo ponkal ponkal loo ngand ngand sa xel kese mënul doy yàlla subhanahu wa la mooy sottanikoo mbir yi ni mu ko neexee su ko neexoon day bind maam aadama alayhi salaam noonu sam bañ a wax malaayika yi dara mais daf leen a woo boole leen ci biir ngir jàngal nit tëralinu dund bi nga xam ni moom lay dund ba mën a egg fi nga xam ni foofu la bëgg a yegg moo tax keroog waxtaan wu rëy woowu xam ngeen ni nit la yàlla yëkkati te malaayika yi daq ko jaamu yàlla bu baax a baax yàlla bi muy wax naan usjudu li aadam ñëw leen sujootal maam aadam xam ngeen ki ma ubbee sama waxtaan muy iblis daa bokkoon daa demoon ba boole boppam ci malaayika yi comme yàlla dafa maandu yàlla dafa baax donte jinne la mu bàyyi ko ni mu jàppee boppam ni malaayika la mu bàyyi ko comme noonu ndax su malaayika yi musaana wàcc di régler jinne yi nga xam ne ñoo mës dëkk ndax nag àdduna ay jinne ñoo fi njëkk a dëkk àdduna bi ay jinne la fi yàlla njëkk a dëkkaloo buñ musaana am problème mu yónni malaayika yi ne leen dem leen ngeen rek la seen ay problème buñ musaana ñëw ñu ngi fekk iblis ma nga toog di jaamu yàlla di ko bàkk di sujjóot di jooy ijlaalan li azamatillah ngir màggal borom bi subhanahu wa taala ci noonu la demee ba ñaawteef nga xam ni moom mooy mujj ci àdduna jàppal ni gis nga àdduna ñaawteef daf fee jiitu waaye ñaawteef tam moom moo fiy mujj ndax ñaawteef boobu mooy dem di law di law ba yàlla sànjam ñëw mu ne malaaka bi yore bufta bi wal ko nit ñëpp faatuma rek la leen léegi nag ci ñaawteef yooyu moom iblis mu dem ba xajatul fii ci kaw suuf muy ànd ak malaayika yi yéeg ca kaw mu jig nag mu yem ca xadara ba toog foofu di jaamu borom bi subhanahu wa taala jaamu yàlla moo tax keroog bi yàlla di woo malaayika yi moom wutewu ko woon daf ko fekke bi yàlla woowee malaayika yi di leen laaj iblis dafa ñëw fekk jotaay boobu mais keroog nag li mu ñàkk tamit keroog la ko ñàkk ndax ni yàlla yëkkatee doomu aadama ni mu ko teralee loolu moom itam dérangé na ko ndax sellte bi nekk ci malaayika yi nekkul ci moom mi nga xam ne jinne la ndax malaayika dañ ko binde ci leer te moom ñu ngi ko bindee ci li nga xam ne moom mooy safara moo tax keroog mu gaaw gis boppam na yàlla lii duma ko sujootal aba wastakbar wa kaana minal kaafiriin bañ lànk ba yàlla def ko ni mu ko def mais nag lim jot a jaamu yàlla moom la ko yàlla fay yàlla ku liggéey mu fay la iblis lim jot a def moo tax bul naagu bul dàq ni bul jàpp ni yaa dàq jaamu yàlla nit ñi ba egg nga ci benn stade ba jàpp ni iblis du la mënal dara olof nee na ku naagu daagu ku daagu ñu romb la ak ay dëgg boo jàppee ni yow egg nga jàppal ni bi nga jàppee ni rek yegg nga boobu yaa ngi ci suuf kon iblis xam nga loolu ko dal li tax mu ñàkk ko ñun doomu aadama ñun ñoo tax moo tax borom bi subhaanahu wa taala jàngalaat nit di ko organiser di ko yar tënk ko wala xad karram naa ba bani aadam yàlla ne na man maa teral jëmm jii di doomu aadam baatu taraanga defe naa lu waaye gàtt-gàtt dégg xam na ko taraanga mooy lépp loo xam ne day jóge ci personne di jëm ci personne nga xam ne bànneex lay doon ci ñoom ñaar ñu koy jokkalante loolu mooy taraanga ku toll ni nag borom bi subhaanahu wa taala malaika yi dàq jaamu yàlla nga xam ne am na malaayika boo xam ni bi yàlla di bind asamaan ak suuf bi mu koy bind ma nga toog fa mu toog naan subhaana zil jabarut wal malakut bi yàlla di bind asamaan ak suuf malaika yooyu nga xam ne dañ naan yàlla ñun niñ la war a jaamoo jaamoowuñ la ko ndax sellte boo xam ne dafa nekk ci ñoom borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daa woo malaayika yi ne leen ñëw leen seen daraja ak seen lépp teg leen ko fële ndax kii moo ma gënal ñëw leen ngeen sujjootal ko moo mu ne wala xadd karam bani adam nii aadam wa xamal naahum fil barri wal bahr mu ne man maa teral doomu aadama mais jox ko ay capacité yoo xam ne bi ma ko wàccee ci kaw suuf jox naa ko ay outils yoo xam ne lay utiliser pour mën a ci kaw suuf wa xamal fil barri wal bahr jox naa ko xel ba mën a ci kaw suuf man faa bay man faa tabax man faa dëkk malaayika yi lu ñuy sell sell ñoo tabax ci kaw suuf mënuñu ko lu ñuy baax baax ñoo wàcc di defal ay avion ak ay oto nit la yàlla may xel boobu wa xamal naahum fil barri wal baxri may leen xel moo xam ni dinañ mën a def ay jumtukaay yoo xam ni dinañ ko mën a utiliser ci seen dund yamul foofu waaye wa faddal naahum ala kasirin mimman xalax na tafdila mu ne yàlla nee na nag ma gënale leen lu dul moom mais nag sew sew dafa am foofu gis nga ni yàlla gënalee doomu aadama jox ko capacité jox ko ay bagage te bagage bi ci gën a rëy moom mooy xel ndax malaayika yi am nañu xel mais seen xel ci lenn rek la yem muy naka la ñuy jaamoo yàlla muy àqalul rabbaani ñun doomu aadama nag yàlla jël xel bi mu jox malaayika yi jox ñu ba pare defal ñu plus muy ñu am àqalul rabbaani am àqalul maash yi ñu mën a jaamu yàlla doomu aadama mun na jaamu yàlla ba yéeg ci sell mun na ko waaye itam loolu mënu koo tere mu mën a xalaatal àddunaam naka lay déroulé naka lay defaree yëre yu muy sol naka lay defaree kaye yu muy jàngee naka lay xalaatee naka naka naka ba mu yegg te loolu malaayika munu ko moo tax yàlla nee na dama leen a bind teral leen ba pare nag yi teey yépp ci kaw suuf ma ni leen jël leen yéen a ko moom mu fassiroon yi dañuy wax naan war mm, a mina wa razaqnaahum mina tayyibaat daf ko def taanis maanaam daf kaa daf kaa jigéenal dañ ciy séentu itam jigéen mi nga xam ne dafay teey lool ci bakkanu góor gi nga xam ne dafa ragal yàlla ñoom ñaar ñu ànd di sëy ku nekk di bànneexu ci moroomam mu nekk daluk bakkanam ba bu génnee du njaaloo waaye jigéen mu nga xam ne itam mooy àdduna mooy ki nga xam ne moom mooy usine bi produire doomu aadama nga xam ne yàlla daf ko bind pour mu dal daf ko bind pour mu teey daf ko bind pour mu normal ndax ci moom la nit di normale sans jigéen nit du normal jigéen nit mënul normal moo tax boo bëggee yar dëgg mënul ñàkk loxo yu dugg jigéen dugg ci yar boobu ndax jigéen mooy ndab li nga xam ne yàlla foofu lay denc kon defe naa ni jëmm jooju di jigéen aka war a xam boppam moom mooy kan ndax nag islaam dafa am fu mu ko fekk am fu mu ko indi islaam dafa am fu mu ko fekk mu nekk fa mu am fu mu ko yóbbu ne ko fii laa bëgg nga toogal ma fi mais tey système bi fëkk na jigéen système bi changé na jigéen système bi dugg na ci jigéen ba gëmloo ko lu nekkul def loo ko loo xam ne waru koo def war wa razaqnaahum min at-tayyibaat lekk yi ngay lekk yëre yi ngay sol jumtukaay yi ngay jëfandikoo mais jigéen ji la yàlla booleel nga di ko xool di kontaan ndax jigéen yàlla moom moo ko bindee noonu moo tax bi yàlla bindee suñu maam aadam alayhi salaam dakaa bind tuuti rek nee nañ yàggul mu rof ko nelaw mu bind ci faaru càmmoñam suñu mam xawwaa waaye bi mu ko bindee nee nañ ci biti aljana la yàlla bindee ki nga xam ne moom mooy suñu maam aadam biti aljanna moo tax iblis da daan toog ba mu yàgg rek mu dem di ko xool di làmb di xool naan waa jëmm ji ndax xam nga moom ni mu toll 60 mètres la ci kaw di ko laal moo tax keroog bi ko yàlla nee sujjóotal ko mu ne lu tax may sujjóotal koo xam ne boo ko laalee ay couleurs yu bëri ñooy génn couleurs yooyu mooy ñun dañoo ñuul ñii dañoo jaune ñii dañoo weex ñii dañoo xees loolu la yàlla dëxuñoon ci maam aadam alayhi salaam mais bi yàlla bindee suñu mam aadam rek daf ni ko uskun anta wa zawjukal na daf ni ko jigéen ak ni ma ko terale jigéen ak nu mu mel kii dafa yenn ay responsabilité yu diis moo tax bëgguma mu sonn dëkkaloo naa leen na mais nag maa asaf ñun ñëpp aljana heure bi daf ñu faa waroon a fekk kon du ñu xam lan mooy coono mais suñu nattu muy iblis yàlla boole ñu ko mu nekk nattu moo mën mënee sama maam wala sunu maam ba mu lekk garab ga ba ñun ñu génn tey ba tax ñuy dund ay machaqaat di sonn nekk fii ci àdduna bu métti bi mais nag suñu góor góorgóorloo dinañ delluwaat suñu cosaan boobu nga xam ne moom mooy aljanna pour wax la rek jigéen mooy àdduna xam nga yàlla mënoon na ut beneen wéttal leneen lu wéttali suñu maam aadam mais jigéen la bind baatu jigéen xam nga boo xoolee sax baat bi suñu maam xawaa ñu jàng arab boo jëlee xawaa boo ci euh, boo dindee waawun bi def ci yaawun dafay nekk xay dañ ko bindee ci luy dund moo tax mu tudd xawaa maanaam ci xay yi dañ ko bind ci loo xam ni day dund wa xalaqa minha zawjaha ha boobu damir bi yaudu ila rajul dafay dellu ci suñu maam aadama alayhi salaam moom moo tax pour jàngal la ne la sans sans euh, jigéen àdduna munta dox munta normal munta réglé waaye tey jigéen itam moo yàq àdduna moo ko tilimal moom moo ko moo ko taxal moo tax borom bi subhanahu wa taala ne jigéen mi nga xam ne tey dañ ko jël def ko benn fawukaay est-ce que xam nañ ne sellte bi nga xam ne sellte bi nga xam ne yàlla daf koy soxla ci nit ki pour mu sell ko newul rek na góor sell jigéen bañ a sell mais day séentu sax ci jigéen pour mu gën a sell xam nga suñu yaay Maryam alayhi salaam bi yàlla di wax ak moom jamono bi muy àddu di ko wax kàddu yu rëy yooyu ay góor a nga fa woon yàlla bi muy wax ak suñu yaay Maryam di ko wax kàddu yu rëy yim ko wax pour mu sell ndax dafay war a doon yi dara pour àdduna bàyyi ko xel jamono boobu am na ay góor yu dàqoon jaamu yàlla suñu maam suñu suñu maam Maryam alayhi salaam mais dafa am lu mu namm ci jigéen moo tax lu gën a bëri dafay jël jigéen teg yàlla dafay wax léeg-léeg dafay jël benn aaya boole ko ñëpp góor ak jigéen ndax yaa ayyuhal lazina amanu umum la ñëpp dañ ciy dugg mais léeg-léeg dafay def istisna daal di jël jigéen nag xam nga fi muy waxee yaa ayyuhal lazina yaa ayyuhal lazina amanu laa yasxar xawmin xaw qawmin asa bu yam fofu ñun ñep dañ ciy dugg mais gis nga dafay da fay dafay wat wala nisaun min nisaain asa ta ya ayyuhal ladzina amanu ku nekk xam na umum la ñep dañ ciy dugg ñep ñoko bok bokk ay francisan lay waxal de ma wañi ki bi arab bi ma ngi jéggelu borom bi subhanahu wa taala bi mi wo suñu yaay maryam di wax ak mom nan ko ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaaki ala nisaa'il aalamiin ngeen def ni yàlla daf ko wax rek pour ñu def ko ci alquran ñu koy jàng di ko romb daf ne sunu yaay Mariam yàlla moo la tànn yàlla moo la tànnal boppam yàlla moo la laabal boppam tànnaat la ci biir jigéen ñi ci biir jigéenu monde bi yépp mu fassiruun yi nee nañ Mariam la doon wax ci jamono boobu mais alquran moo nekk ay kàddu yoo xam ni dafa nekk kàddu caami la maanaam dafa matale suy wax ñépp lay waxal yàlla daf ni ee eh, yow jigéen dama la bind bind leneen lu dul yow ngeen bokk pénc mi mais dama laa bàyyi xel lool moo tax soo góor góorgóorloo dangay nekk tànneef mais du yem ci yow mais koo làngal tamit mu nekk tànneef moo tax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi wala zi xabusa laa yaxruju illaa nakidaa moo tax dañ lay wax ni suuf sax dañ ko jigenal la terre lañuy wax suuf su bax ngay meuna ji meññent bu bax mu gennel la meññent bu bax mais suuf su bon lo ci ji lim lay gennel du bax manam jigen sax mun na bon mais jigen jëm ko defar léeg-léeg nga gis góor go xamni day doy war ay sik lool mais mu am soxna su dégg bopam dégg dinem mu orienté ko te histoire du du am dara du am ndax yalla daf ko may jigen mu am capacité boobu motax borom bi subhanahu wa taala alquran mu tudd jigéen non seulement mu tuddee jigéen ñëpp ay saar tuddee suñu yaay Mariam Saar ba pare nag wax ko kàddu gi yàlla moo la tànn kon jigéen xamal ni boo nekkee jigéen rek yàlla moom moo la tànn ndax moom bi ko yaayam ëmbee ba muy ñaan ñaanam gu réy googu rabbi inni nazartu laka maa fi batni muharrara góor la bëggoon a am ndax su nekkee góor su màggee mu nekk ci jàkka ji di taxaw taxawaay yi nga xam ne góor yàlla yi dañu koy taxaw lii firndeel loolu mooy bi mu ko amee mu nekk jigéen rek daf ne ah yàlla indi inni wadatuha unsa wala sa zakaru kal unsa yàlla ah wasin naa de mais jigéen laa am mais góor ak jigéen duñu benn yàlla bugg koo jàngal ne ko jigéen bu góor góorlu def loo xam ne sax góor mënu koo def ndax la góor di def ci jigéen la koy jàngee ndax jigéen mooy formatrice bu mag bi sëy bi ñaar ñoo ko bokk mais su ëmb amee yàlla na ko góor ki demal toog fee yéen ñaar yéen a jaxasoo ba ëmb am mais woluuma la ci ndaw si mom la ci wolu mom moy eumbe mom moy imbi kon koku fi mu jaar ak fi yalla jaar ak mom dafa sori waye fi mu jaar sax ak nit dafa sori kon jigen joju warna xam mom moy kan warna xam bu baax bopam waye warna xol fi muy tek tankam fan la ndax ku nek xam na ni jigen mom moy taxawal societe jigen mom moy mën tax ñu xam askan jigen moy mën tax ñu ragne nit nit mana taxaw ne man diw moy sama yaay xam nga lele sax nit juddu te kenn du xam yalla lu mu def rek amna lutax amna magu hamnin bin yu seni yo xamni biñ xamé seen papa yagul mais yaay xawma sama yaay xana day fekk mu faatu ndax lié bi lié lié bi nga xamni mo nek ci diggante yaay ak dom yalla mom moko aral bopam mom motax légui nak sax xam ngeen ni jigen sax dina jur dem sanni jigen dina jur gasul comme bu ñëk ba niñ ko doon def ndax lan liko ko dugg ban febar mo dugg jigen ba tax muy def lolu motax borom bi subhanahu wa taala artu doomu aadama mais artu jigéen yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim allazi xalaqak fa sawwaak fa adalak fi ayi suratin macha rakabak yow nit lan mooy sa problème ba système bi nga xam ni moom laa tëral nga ñëw benn nasaraan benn juif benn franc-maçon bugg laa gëmloo loo xam ni néegam la toog di xalaat ay moyen la yor di ko financé ay jabaar la àndal ñu doy waar ñoo xam ne jàpp nañu àdduna bi seen loxo lañ ko téye di ko manipuler ni mu leen neexee mais li ci métti mooy jullit ñi ci ànd ak ñoom ci manipulation boobu te yëguñu ko xam ngeen loolu moom moo ci métti. moo tax nit saa yu bëggee maam yàlla na ko defal attention e yow doomu aadama lan mooy sa problème maa xarraka bi rabbikal karim jàngal la nag delloo si la tee ngaa delloo yàlla njukkal xoolal ni mu la bindee yàlla mi bind yemale la defar la def la ba nga jekk fii ayu suratin macha rakabak jël bët teg ko fi mu ko war a teg jël gémmiñ def ko fi mu ko war a def xam ngeen ni bët bu fekkoon day nekk benn rek nekk ci jël koo taseel mu daw jinne yi nag moom am na ñu mel noonu jinne moo tax ku ko gis sax da ngay jommi dangay ngay dégg ñu naan diw dafa jommi ndax bëtam moo gis lu mu musul gis mais nit yàlla daf ko bind ci suura bu rafet ci melokaan bu rafet mais nit yàq na loolu nga xam ne moom mooy dundin boobu ak bindin boobu ko yàlla bind ngir ne lan li ko changé li ko dugg moom may benn système boo xam ni ña koy xalaat amuñu benn cër ci borom bi subhanahu wa taala moo tax sax gis nga borom bi xaw a yamale góor ak jigéen ci sax ñoom ñaar bu ñu liggéeyee ci àdduna buñ jëfee jëf yi nga xam ne moom moo ràññeeku ku nekk lim ciy am ci payoor xam ngeen ni góor du liggéey jigéen liggéey ñu jël benn jigéen jox ko góor ne comme kii góor la kii jigéen la ñoom ñaar mënuñoo tolloon li ñuy fayeeku xam ngeen loolu du maandu te yàlla dafa maandu mais liñ ciy jàngee rek mooy àdduna jigéen moom moo ko ëmb àdduna jigéen moom moo ko yor mais ban jigéen moom mooy yor àdduna ban jigéen moom moo ëmb àdduna suñu jigéeni tey yi day suñu jigéenu tey yi dina jafe lool pour ñu imbi ay doom yoo xam ni dañuy nekk ay góor yàlla am li nga xam ne moom mooy ngëm mën a dund seen àdduna mën a doxal seen réew mën a xam bu baax ñoom yenn façon nit lañu war a doon ci àdduna xam ni ñuy tooge ba duñ nekk xob boo xam ne lu ñëw daf leen di yóbbaale. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam boobu mu wax laa yakun ahadukum immaa yaqulu ana ma annaas in ahsana naasu ahsantu wa in asaa'u asaatu walakin am anfusakum mu ne bu leen nekk al toppe tey jigéen ñi genn wàll yëpp ay al lañ tey suñu ay model jëlatuñu ko ci ñi nga xam ne ci ñoom lañ ko war a jëlee tey suñu ay modèle tey yeneeni modèle lañ teg suñu kanam tey aka ñoo am ay modèle aka ñoo am ay référence aka ñoo am ay jigéen ñoo xam ne suñu yaay Xadija radiyallahu anha xam ngeen ne jamono bi muy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xew ci crise xewoon na li xew ci ñàkk kersa xewoon na li xew ci mbonte xewoon na mais yàlla moom moo ko dimbale defar ko mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tànnal ko yonent bi ndax yonent bi daf daan toog sallallahu alayhi wa sallam naan yàlla moo ma wërsëgal xadiija bëgg ma radiallahu anha gis nga seen bëggal boobu ñoom ñaar moo tax tey islam egsi fii mu egsi tey yéen a may dégg est-ce que ñu ngi lay nuyu est-ce que yéen a may dégg ñoom ñaar li ma leen di wax dama bëgg ngeen déglu ko bu baax de dama ni suñu yaay Khadija radiyallahu anha préparé bi ko yàlla préparé boobu islam ñëwagul de pour wax la ni yàlla dafa mës a bàyyi xel jëmm ju ñuy tuddee jigéen ndax bi islam laataa ñëw lañ ko doon woowee at tahira ku laab ki ndax lan mësul def bopp neen génn ci mbedd at tahira lañ ko doon woowee gis ngeen jamono bu njëkk ba jigéen su musaan def sufuur maanaam sol tey baas toq tey baas comme niñ koy waxee génn sol body génn sol jin génn fu mu romb du egg lu dul ne viola nañ ko balaa muy dugaat ci këram moo tax yu bëri daan juddu te duñ xam kan mooy seen papa mais su musa musaana génn sol melfa sol lu jot kenn du ko laal dañ naan kii gor la ñoom ñaar niñ leen doon xàmmee dañ naan kii mooy gor kii moom mooy jaam avant islam du ñëw laa lay wax nii de mais yàlla dafa préparé woon benn ndab ci waxin benn magasin ci waxin mooy sunu yaay xadijatu radiallahu anha pour mu ànd ak ki gën ci nit ñi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mun koo dalal ci li nga xam ni mooy mbir yi njëkk a xew ci moom nga xam ne dina diis lool ba du ko àtten mais mu jël jigéen ne ko yow laay boole ak góor moom lekk-lekk dina dem ba xaw mel ni du ko àttan mais yow di ko àttan yow miy jigéen kon jigéen moom mooy àdduna moo tax keroog bi mu jógee ci xaaru xira ñëw naan zammiluun yi zammiluun yi dasiruun yi dasiruun yi suñu yaay Xadija tiitul afalewul jigéen noonu lay toogee ci société afale foofu li tax ma tudd baatu afale mooy lan moo la war a mën a xëcc yow jigéen ba génn la ci fi nga xam ne moom mooy sa ñoŋe génn la ci sa mbaax génn la ci sa njub ak li nga xam ne moom mooy sa kersa yóbbu la feneen foo xam ne waroo fa woon dem afalewul yonent bi dafa jaaxle bi muy dugg si daf doon lox bi muy dugg si daf doon yuuxu bi muy dugg si dafa mel ni dafa tàqali ko sagoom ndax daa gis lu mu mësul gis mais gis ngeen bi mu ñëwee daf ko dalal كلا والله لا يخزيك الله ابدا نيكو ديدت ندخ بيمو اندك لول يوننتي بي ليمو اندال نون داف كو بولك اي واخ كوم ليلي نيت بو امي بروبليم نيمي واخه نانغام دا فا جاخنات غيس لو موسول غيس دا غيس جيت دا غيس ملائكه ندخ بيمي جوغي خارو خيرا افان موي ايغ كرم جبريل داكو فيني وات موتين لومو خول داي نيك اي لاف دو جاخله دا غاي جاخله مي دا فيك جيجن بو باري ليلي خالي غوري دانيو جيفنديكو بات ndax xale bu jigen bi xale bi dafa pare jigen moy pare jigen, day jigen da fay nopi day pare motax yalla parél sunu yaay khadija radiyallahu anha bolé ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu mën ko dalal ndax ñun ñu jot ci li nga xamni mom moy daawa bi motax bimu bi mu dalal ko waxtaan ak mom dalal xelam jigen li lañ koy doyé ci société jigen sel bi lañuy soxla ci mom motax bi borom bi di wax naan wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها باتوا سكينة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو نون رك يا من دفع بوقت سما ميراكلي ينيب ما بين لين جنيك أي بير مام أدمك مام حوا لن مسانا جور دفع نيك أي سيخ سيسا كسي مم موجود نيك كيان كو خامن دو سيخ مدام بنيون تلنيو جدو nga dem ba mën ki nga xam ne yéen bokk ngeen dem ba mën sey lolu miracle la mais xolal baatu ma ak rahma mooy kër gi fess del da fay remplir li nga xam ni moy mbax day fess li nga xam ni moy yermande day fess ak li nga ni moy dal te dañ koy sentu ci ki nga xam ni moy jigen ma wadda dañ koy jox jigen rahma ñu jox ko ki nga xam ni moy goor ma wadda mooy jigéen bi nga xam ni xelam dafa dal ba mën dalal xelu goor mooy ki yaru ba mën a yare mooy ki ràññee ba nga xam ne ku mu yar yawit di nga ràññee mooy mawadda baatu mawadda paa cofeel kese lay firi paa nobel kese lay firi mooy mooy koo xam ni dalluwaay la moo tax yàlla ne li tas nu ilayha dama préparé jigéen ngir góor su génnee lu mu métti métti bu delsee ci biir kër gi xam ne fekk na fi koo xam ne pare na toog di ko xaar ba liggéey bi nga xam ne daf koy liggéey bu demee ci bureau bi dina mën a concentré wu waaye doom yi nga xam ne itam ñoo war a génn nekk ci société bi ñu yar leen ba ñu ràññee xam lu ñu moom li ñu bokk ak nit ñi ak li nga xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp tey loolu la ñu tey suñu problème mooy ñun jigéen ñi xamuñu lan la ñu moom xamuñu lan lañu bokk ak ñi ñi nga xam ne ñoo ko bokk ak ñoom xamuñu li nga xam ne ñun bokkuñu ci ak ñoom ñu bàyyi leen ko ak ñoom moo tax tey nga gis tey li ñuy dund ñu koy dund mu nekk lu doywaar yàlla nee na jigéen maa ko préparer maa ko defar pour mu nekk dalluwaayu góor dalluwaayu société ndax ci moom la société di baaxe moo tax benn filosof dafa bind ne jigéen mooy ndab li nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf koy def cee def moroomam mu di ko sàmm di ko saytu di ko defar ba mën a taxaw doon loo xam ni dafay yàq wala mu doon loo xam ne dafay defar aka nekk dëkk jigéen mooy usine bi nga xam ni saa yu produire li mu génnee mun naa baax comme mun naa bon mais dafay dépendre ci moom ndax jigéen dafa war a nekk saaliha fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bi maa xafizallah signature la étiquette la loolu la leen yàlla étiquette boobu moom moo normal nee na jigéen baat bi jigéen li ñu séentu ci moom mooy baax saaliha baax bi ñu laajee yorant bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dañoo dajaloo ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah mal bir ne ko yow mi yàlla yónni lan mooy mbaax mu ne al birru xusnul xuluqi baax mooy rafet jikko moo tax yorant bi bi muy joxoñ góor ñi di leen tànnaloo soxna mu ne leen taxayaru li nutfikum fa innal araqa da saasa boo bëggee am doom ju baax dangay tànn ndey ju baax tan leen fi ngeen di def seen jiwu ndax ku nekk li nga bay loolu ngay góob waaye tam ne góor ne jigéen ñi itam tànn leen yéen itam kiy def jiwu ci yéen ban façon la mooy kan ba li muy ji ci yow est-ce que tam jag na wala jagul kon ñëpp dañuy dañuy tànnante moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi xel jigéen boppam ay waay jigéen na bàyyi xel boppam ay jigéen na xam fi muy teg tànkam ay jigéen na xam moom mooy kan sànq xadis bi ma la jàngal laa la bëgg a firil yonent bi nee na bul nekk al toppe lu xew nga xew ànd ak moom laa yakun ahadukum imaa la wax dinaa la firil aaya bi ma jàng léegi nee na bul bul nekk al toppe lu xew nga xew ànd ak moom mais gis nga mbir bu xewee yàlla dafa la defal benn appareil bu nekk ci yow nga xam ne loxo du ko làmb daj ko mooy xel da ngay da ngay seetantal xalaat lii nan laa ciy demee waa portable bii ñu indi léegi lan laa ciy def ndax mooma moom wala man maa koy moom ñépp léegi seen portable yi ñoo leen moom dañ leen a conditionné portable bii appareil bu ndaw bii ñu bëri ci nit ñi moo leen moom actuellement xam nga lu tax mu moom leen waaw bu fekkee soo xëyee 24 heures sur 24 yàlla tracé la sa dund ni ngay dunde ne la bii su jotee demal ci sa bopp nga liggéey sa àdduna ndax àdduna yow yaa koy tabax ndax wastaamarakum fiiha yaa daf leen wàcce ci kaw suuf ngir bëgg ngeen tabax ko ne la heure bii bu jotee am na lu ma séq ak yow ñëwal man ak yow ñu déewante muy julli ne la heure bii bu jotee demal defi leneen mais tey sunu 24 heures sur 24 ñu ngi koy passé suñuy portable di gën a bari ci ñun lu gën a bëri ci ñun suñuy portable am na koo xam ne portable dafa mel ni dañ ko koo jalis bu ko ñàkkee sax day mel ni kuy daanu crise yaay yi waroon nañ fee toog ba nga laaj yaay yi seen doom yeeg portable am na koo xam ne boo jëlee portable am day mel ni àdduna nga nangu ci moom lan moo nekk ci ginnaaw appareil boobu lan mooy problème bi est-ce que defuñu ko woon nag pour mu nekk moyen boo xam ne danga ciy mën a communiquer mais yan secret moo nekk ci biir yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen bu mu nekk al toppe di wax ni lu xew ma xew ànd ak moom appareil bi dofloo nañu bari télévision lañ la indiloon bu njëkk ba mu lay xibaar di la waxal li xew xibaar ak a fee yàgg yàlla daf doon wax yonent yi nabbi ibaad yi informel sama jaam yi mais ban information mooy lu leen di jëriñ bii dafay jëriñ dafay lor am na ijaabi am sol salbi am na positif am na négatif mais tey ni ñu koy jëfandikoo est baax na te nag 2002 sama mag bu góor dafa fekkoon mu nekk Australie mu ne sam papa benn bés papa moytu leen portable ndax feebar yu bëree bëree bëri actuellement mi ngi del sénégalais yi te ci portable la jóge bi mu koy wax dañ doon reetaan naan Bécaye lan lay wax nii génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm nan bi kay lan lay wax ni appareil nan la mënee feebar nit rayon yi ci nek amna ay mbir yu ci nek yo xamne dalay feebar te ñun ñëpp wop ndax portable wuñ ci xel nak amna lu muy def ci sa yuur do ci bàyyi xel amna lu muy def ci sa xol do ci bàyyi xel amna lu muy def ci sa xel do ko bàyyi xel amna lu muy def ci sa physique sa physique sa yaram des fois nga wuy wuy téléphone ba sa nopi tàng jeur nga def ni lool amul ay effet yu mu war def ci sa bir yaram bi day def ay effet niñ koy jëfandikoo ñi ko liggéey sax duñ ko jëfandikoo noonu ñun ni ñuy jëfandikoo appareil yii ñi nga xam ne ñoo ko defar sax jëfandikoo wuñ ko noonu moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ay waxam day matale bul nekk al toppe lu xew rek nga xew ànd ak moom waaye organiser sa bopp xamal li xew nan nga cay deme su baaxee nga jël su bonee nga bàyyi baax na certes baax na ndax nag di nga bëgg a jot nit mun ko cee jot mais li làqu ci biir tey xale yu bari yàqu nañ lan moo leen yàq jumtukaay yu bees yi nga xam ne moom moo xew moom moo leen yàq yaay ji nga xam ni dafa jékki-jékki rek dem biroom taal ordinateur gis benn information benn xale bu am 12 ans mooy jëflanteeg benn tubaab mu cliqué ndekete doomam la keroog la daanu feebar ba feebar boobu moo ko rey xale bu am 12 ans nekk ci néegam di jëfalanteek benn tubaab di sëy à travers kii ñoom ñaar bañ def ko ci net bi yaayam gis ko xool ndekete doomam la fala daanoo koomaa ñu jël ko yóbbu ko hôpital feebar boobu moo tax mu génn àdduna wala iyaazu billaah est-ce que loolu moo taxoon ñu defar appareil bi yonte bi wax na dëgg bu nit ñi rafetalee rafetalal ànd ak ñoom bu ñu ñaawalee nga bàyyi ñaawal boobu te nga rafetal organiser sa bopp ndax jullit dafay am organisation moo tax yàlla ne jigéen moom li ñu séntu ci moom mooy baax fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bi maa xafizallah jigéen dafay baax ba mën a baaxale di def ay jaamu yàllam ba ca yokk ay naafi la waaye wattu li nga xam ne moom la ko yàlla wattu loo sàmm boppam ba du bazarde boppam yaa ngi fii Sénégal fekk na yegg nga Europe bu yàgg fu ne te nag yàlla moo wax dëgg xam nga bu njëkk ba dañ lay toog di la waxal yowmal xiyaam ngay laam-laamee waaye est-ce loolu mun na nekk ñu naan la yowmal xiyaam loo def yàlla daf la koy won ci sa kanam ngay toog di calculer defe naa ni appareil yi jàngal nañu ne yowmal xiyaam dëgg la dangay wax ak nit léegi mu enregistré la bu ko neexee léegi mu sànn ko ci net bi yëpp ñëpp dégg li nga doon wax secret foofu kon yàlla bu nee yow ma tub la saraayiru defe naa ñëpp war nañ koo gëm kon nit day organiser boppam jullit day organiser boppam waaye rawatina yow mi nga xam ne yow yaay jigéen yow yaay ndaw te fiir gi bi ko Iblis sànnee yow rek lay fiir bi ci gën a métti nag Facebook moo tax bëgguma am man page Facebook bëgguma ko des fois dangay xool Facebook dangay mer la man li may gën a merloo mooy xale bu jigéen bi nee na moom day dund sunna ma nga muuru waaw looy photo di génn ay tuñ di guddal ay tuñ façon photo dof bu nekk photo dof laa ko tuddee man man sama waa kër bu ñu yoree appareil di def nii dama dañ ma koy ñaawale yaay looy dañ naa ma yaay ñi ngi sëlfantu xaw ma selfie selfie la tudd looy selfie selfie yore sa portable rek toog sa néeg ñu naan la ay sinap façon bu nekk ñu indil la ko nga foto sa bopp def nii say tuñ léeg-léeg nga rosa ko ba mu xonq léeg nga tàllal làmmiñ ndeysaan laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwimin wallahi suma radannaahu asfala saafiliin yàlla nee na maa bind nit def ko ni moo deful kenn malaaka yi ñun xamuñu ban suura lañu am xamuñu ban melokaan la ñu am buñ ko gisee rek mooy dañuy faatu mooy suñu jëmm yi dafay tàqalikook suñu ruux yi ci la ñuy gis jëmmi malaaka malaaka jinne dañ la koy décriral ni mu mel léeg mu am benn bët léeg mu rafet lool léeg-léeg mu ñaaw lool mais ñun dañoo rafet yàlla moom moo ñu bindee noonu laqad xalaqnal insaana fii ahsan baatu ya baatu ahsan la yàlla utilisé fii wii taqwiimin yàlla nee na maa bind doomu aadama defar ko ba mu bien mais moom dina yàq boppam ba yegg ci maal moo tax bu jëlee doomu aadama jël bàyyi ma teg ñoom ñaar yàlla day jékki-jékki ba mu yàgg daal doomu aadama doo dara mala bii sax moom moo la gën ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لطح لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يا لداد تحو خول نتنك أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا لنينا جهنم man ko taal ba yonent bi demee seeti ko bi mu ñëwee dafa joy joy yu métti ndax dama fa gis dafa yéeme dafa doy waar ñun ñuy togg xam nañ safara ni mu tàngee bu naaj bi tàngee rek dangay bëgg ventilateur upp la te tàngoor bi baat rek dañoo nuroo rek ñoom ñaar nuroo rek mais yamuñu ay degré yàlla nee na dama ko préparé li bari ci nit ñi ak ci jinne yi mun ne lu tax dañoo am xel te duñ ko utiliser lan mooy sa problème ba appareil bi moo la moom léegi yenn ci internet bi bu dee da ngay jàng ak am solo لا لواجه وخن إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري نينا بس بما رومبو تا جانغوما لو خامني داي تخما ديفلوبي سما ادونا خام بو باخ سما ادونا ديمب امونا بيان تاي ما ام تري بيان ولا مو گن ما جوكوليك سما ديغنتك سما بروم با ريزو بي دي داو با انيان دين سخور دين رانكين دين فين دين ليغا خامني موي نجالو دين سما بوب اك لوني مل mu ne bu fekkee bis bu romb loolu jànguma ci loo xam ne dina ma yokk sama diine wala mu yokk ma sama àdduna mu ne bis boobu bokkul ci man ñu bari ci jigéen ñi dañuy xëy suba ba ngoon nekk sa portable envoyante ay message ay message yu ñàkk fayda ay message kalaam faariq ay wax yoo xam ne amul benn solo bi gën a métti nag ay man lu tax ma jongama ay góor sax dañ koy wax xam nga jonga baatu jigéen la jongama baatu jigéen la maanaam jigéen mag ñi bu njëkk ba bu gusaan jigéen mu am qualité qualité qualité pour ngeen dégg li may wax bu baax jongama ay qualité la nga dégg ñu naan diw de ah ticce moom soxnaam dafa jongama day mën a teral gan mën a accueillir nit yaatu lool baax lool civilisé lool xam ni muy waxee ak nit ñi mooy jongama mag ñi dañ daan wax ah diw jongama la macha allah mais tey yow jongama nga yaakaar ni rosa bi la maquillage bi la ah greffage bi nga teg la muuraay bi nga def fashion ba mel ni greffage des fois naan man lu tax ma jongama ma woo parce que jongama ay qualité la mooy qualité yi jigéen ju baax ju set ba mën a setale kooku mooy jongama xëy suba ba ngoon nekk ci sa portable Nek sa internet bo de jang dara nekku ci mais bu fekke jangulo defo ci lenen ya ngay jëflanteeg ay ngir ben portable bu cher ngir obo sol ngir tubey bo sol ndaysan ya ngi delo sa bop fagn la jele won demb ci ayamul jaaxleeti ula ta bàyyiwuloo ci sa ta bayiwo ci sa xel motax yalla mu ne dama len ko ndax ñom dañu am xel te duñ ko utiliser lahum qulubun la yafqahuna biha xel dañ koy utiliser lan motax yalla binduma muray bi sax lan motax may muru mais njang mi damay jang sama objectif mom moy lan sama hadaf mom moy lan damay jang pour lan limay def pour lan la conférence bi ngeen def chaque année pour lan la su amul ben objectif dootu ko jar nit loy def day day da nga wara am fi ngay li ngay def dafa war am commencement mais tam nga am lo xamni mom ngay viser na man fi la bëgg yegg mais jël sa temps yépp ak temps ni mu chéré temps ak cher ëllëg yomal buñ duggé aljanna xam ngeen lan lañuy joy temps lañuy jooy temps liñ ciy jooy mooy ay yàlla bu ñu yëgoon liñ ñu fayee duñ toog benn seconde du dul ne wax nañ benn subhanallah wala benn laa ilaha illallah wala benn alhamdulillah bu ñu yëgoon bi ñu nekkee ci àdduna duñ bàyyi benn seconde dem lu dul ni def nañ ci loo xam ni ndax tey li ñu fay ñun xam nañu ñun liggéeyu ñun toll noonu mu ne dama préparé safara nit ak jinne ndaxte amna ci ñom ñoo xamne ne utiliser seen xel luñu leen jox ñu jël mod bu bu am rek xolo xale jigéen yi pour wax la naïveté bi nekk ci ñom dañ lay indil ben film tanal la ki gëna ñak jom ki gëna ñak kersa def ko actrice principale bi diko ko solal ay yére te mom lek lek sax yére ci séquence yoy rek la koy sol mais yow sa ñak xel taxna da ngay def ni lool mom moy dundu gi légui ñun pass nañ ay film fi Sénégal ay ay série lañ lay indil ay théâtre sénégalaise bu melni yow mais fekk na habillage bi ci kaw rek mooy sénégalaise mais ci biir lépp nasaraan la seen wax lay wax seen jëf lay jëf seen dundin lay bëgg di dund nga yaakaar ni loolu moo nekk système bi nga bëgg ko dunde moo tax am na fi ay série yoo xam ne tas nañ ay sëy yu bëri ndax am na yoo xam ne c'est impossible mën ta nekk boo yaakaaree ne dund gi noonu la toujours luxe la da ngay nax sa bopp yàlla indiwuñu fi pour loolu yàlla binduñu ci àdduna indi ñu fi rek pour ñuy bànneexu rek te naqar du am boo naqaree sax boo amee loolu naqari sax na da ngay xaru boo amee loolu yi toj kaas comme tubaab yi ni ñu doon def du noonu kon nee na xel dañ koy utiliser am nga xel yor nga portable ki ngay jox sa numéro sax war nga koo xam mooy kan mais xale bu jigéen yor sa portable ku la laaj numéro rek nga jox ko ku la woo keke keke billaay dama laa gis tax xale yu góor yaa ngi mën a naxe ñi ngi mën a naxe wax la ay wax yoo xam ni sa téléphone booy wuyu sax ndeysaan bu ñu la woowee da ngay jug rocceeku ndànk daw boo toogee sa yaay ak sa papa sooy wuyu da daw looy daw looy làqatu xale bu góor bi tam léeg-léeg mu toog ay kilifaam ñu woo ko boo xoolee ay appelam bu dee diis la 9 yëpp ay jigéen lañ ndax jigéen ñi nag léegi ñoo mel ni ay weñ dañ lay topp di la biiw yow kay yaay daw ñoom ñu topp la di la biiw ñoom ndeysaan maal asaf malheureusement ah, góor ñi li wax xam ngeen ko xale bu jigéen mooy topp góor langal ko ko rek mu jaral ko muy xeex jaral ko muy xuloo lu ne daf ko koy jaral lu ne daf ko koy jaral ak jigéen ak ni mu seere ak jigéen ak ni mu mel moo tax buñ la koy may duñ la dañ la koy jaay duñ la dañ la koy abal baatu may ndax amoo valeur am moom moo tax mais moom nag léegi moom benn sandwich benn mille francs benn 2000 francs loo bëgg def ko moo tax takk takkatuñu léegi ah comme takk nii takkul nii kay kon nii loolu la benn waaye waxoon bi waaye nii boobu nag doo ci jële benn ndam ndax sam papa daf doon wax ne góor ndaala lu ñu root teg booy tànq di tuur bu yàggee mu jeex góor ndaala lu ñu root teg ko booy tànq di tuur bu yàggee mu jeex nee la dañoo am xel te duñ ko utiliser am ay nopp te duñ ci dégg am ay nopp te duñ dégg dëgg duñu dégg loo xam ne moom moo leen di jëriñ appareil bi da nga koy télécharger ay musique suba ba ngoon ay musique ngay déglu xoolal léeg-léeg mbedd yi sooy dox da ngay jaax da ngay jékki-jékki gis nit mu reetaan bu dee da ngay déglu sax loo xam ni sax baax na koo xam ni musique moo koy reetaan loolu musique moom mooy mooy naatal xorom ala sa ama yafaaluun koo xam ni ci li neexul yàlla ca ngay yëge bànneex boobu bànneex ëllëg dañ la koy laaj ndax su ma la tus alun na yow ma isin anin naim sa banex bi nek ci yow nga di yek euleuk yowal yowmal yalla daf lay laaj banex bi noko amé won ak bi ngi amé noko don banexo am nañ ay nopp te ñu ci dégg lu baax jël sa portable rek ci say nopp looy déglu musique suba ba ngor musique ngay déglu sa xol di gëna waw ñu mëna nodd do juk julli nga ñu mëna di def lu baax do ca participer bu dé lu bon nak shaytan xëc la ndax dem na ba nga nek wayam télécharge ay yu ñàkk fayda ay théâtre yi nga xam ne xool leen senegal des fois danga naan sénégalais yi xaw ma dañu yabaate ñenn ci ñoom du ñëpp weeru koor ak ni mu toll. nga woor ba ngoon war a jàkkaarloo ak sa boroom ñaan soxla yi nga am ñaanal waa àdduna ñaanal jullit ñi nga xam ne ñi ngi leen di rey yow yaa ngi fii di noos yaa ngi fii di dund mais am na jullit ñoo xam ne ñi ngi woor ba ngoon duñu am lu ñu ndogoo am na ñoo xam ne ñi ngi leen def xisaar gaw leen génnuñu lekkuñu naanuñu yow nga tala reetaan ba kekku nga woor nag ba ngoon koor ak ni mu mel ñu tegal la benn théâtre boo xam ne ñoom buñ koy jouer day fekk koor gi jotagul ñoom buñ koy jouer nag day fekk koor gi jotagul mais di saboter di lekk ay tëdd ñu lay sotti ndox sa ay di julli di fo di caaxaan nga toog yow mi koy seetaan kenn gënu laa ñàkk fayda am na ñoo xam dañ koy télécharger sax seen ay portable di seetaan yu ñàkk fayda yooyu am ay nopp te doo ci dégg loo xam ne moom lay jëriñ yàlla nee na ñi jahannam dañoo am ay bët te duñ ci gis wala hum ayunun laa yubsiruuna biha est-ce que xam ngeen nu bët du gis bët du gis lii gis mi ngi ci biir appareil bi la la yàlla tegal ci kaw mais fiil yi yi nga xam ne mooy tax soo xoolee gis ci biir la nekk moo tax kii mën a gis njub ba mën koo topp kee mën a topp leneen loo xam ni nekkul lom la loolu la war a topp ndax lan fa ñuy gisa ñoom ñaar moo bokkul ndax basiira loolu moom mooy gis moo tax muy yëg-yëg ma tax yàlla mu ne buñ demee ba nga xam ne nouvelle technologie technologie dafa ñëw nga xam ne day wane sama xereñ wane ne man lu ma waxoon dëgg la li ma wax yépp dina ñëw mu dem ba loolu tënk leen moom leen kon nag ñoom ñoo bàyyi may sax ñooy mujj yam léegi parce que yàgg bu sax bàyyi mayu ñoom ñoo leen tane ulaayika kal anaami bal hum adal ulaayika humul gaafiluun tey nag li mu indi mooy tig yi li mu indi bi ci jiitu mooy data tasaare njaboot gi fami amatul fami bu njëkk ba da dangay jàngi wàcc ñëw fekk sa papa ak sa yaay ñu toog di waxtaan yow tam nga dem ñëw toog participer ci waxtaan boobu ngeen toog di sottante xalaat di waxtaan ngay jël li nekk ci papa di jël li nekk ci yaay muy ay xam-xam ndax ñoom duñu yàgg mais duñu yàlla mais dañu yàgg ak yàlla xam loo xam ne xamuloo mu dolli la ci sa moo tax xale yi léegi ak a bëri ay cuune ndax amatuñu ay delluwaay ay marjeex yoo xam ni dinañ waxtaan ak mag mu leen di guider nga ñëw waxtaan ak sa famille papa ak yaay toog di waxtaan mais tey kër goo dugg ku nekk nii rek kër dugg leen ci kër yi xool ku nekk nii lay def ku nekk mi ngi sëgg ci portable am tey famille yi nga xam ne dañoo waroon a suude nekk benn tey lii nga xam ne moo xew muy nouvelle technologie daf leen a tasaare mooy dañoo jege ba pare daal di sori yow jege yooyu noonu jege noonu nañu ñoo nekk ci biir kër gi mais dañoo sori yoo mooy kenn ku nekk am na lu la occupé te mi ngi ci sa biir portable. whatsapp nag ñëw ne tey nag xaar tey ma toj dëkk bi nag ñoom moom whatsapp ak ma koo ragal maa ragal whatsapp ah da nga dégg jékki-jékki dégg sa audio feneen di. la ngay wax est-ce que wóorul am ñu am na ñoo xam ne ña nga toog di la dégg ñaat nit la ñu jàpp ñoo xam ne li tax ñu jàpp leen mooy seen téléphone lañu leen jàppe ay nit ñu def lu garaaw ñu leen di wër mais benn appel bu ñu woote rek ci lañ topp ba jàpp leen nga yor sa whatsapp bii rek nag na ca ngay doxaan yow yow ca ngay doxaan yow yow itam ci nga recevoir sa ay far yow aka doy waar télévision lañ ñu indil démb mu xaw a tas kër gi tuuti dañ daan toog di waxtaan ñu indi télévision da ngay toog concentré wu ci film bi do kenn dootul waxtaan ñu ne nag léegi kon nañ leen indi li nga xam ne moom mooy internet indil nañ la portable léegi nag ci biir portable lu ne dañ koo dëxañ ci biiram daa tasaare yi léegi dugal ci kër ñëpp ku ci nekk mi ngi concentré amatul waxtaan ku nekk yaa ngi concentré wu ci sa portable sama mag dama koy tooñ day faatu dama koy ne ay tante tante saa yi mu ñëwee maa ngi la fekk yaa ngi naan nii rek whatsapp ma ne ko mais nag alhamdulilah ndax lu baax nga ciy def ndax comme yow da nga ciy jàngale mais day dem ba dootoo amati vie xamoo te nit dangay moom sa bopp des fois. mais topp rek appareil yi topp leen topp leen bu mu mel ni yow yaa nekk seen seen seen jaam ñoom ñooy sa yàlla ñoo lay gide fu mu bëgg rek dañ la fay yóbbu kon tas na famille beneen bi yàq na jikko yu baree bari danga doon yar sa doom ci biir kër gi yar ko ba mu normal mu nekk mag du xam lu baree bari mais tey ay xale yi li ñu xam man damay toog di waxtaan ak samay doom di waxtaan ak samay élèves wallaahi léeg-léeg ñu wax loo xam ne man xaw ma ko ci relation góor ak jigéen fan lañ ko xamee du ci internet bi du ci portable bi moo tax ñun yarkat yi ak ñu am ay responsabilité dangay toog ci sa biir kër am loo xam ne yow yaay xamuloo ko fekk sa doom xam na ko ndax fu ne ndax man sama portable am na lu ma ci mënul te sama doom bu ko jëlee am ci loo xam ne mun na ko caa def te man mënuma ko ci xale yi dañoo sob ci portable xam loo xam ne yow xamuloo ko di def loo xam ne doo ko def di wax loo xam ne duñ duñ ko wax man benn bis lañ jàngi ñëw dugg si ñëw fekk ma toog ci saal bi sama benn élève nuyu ma ne ma yaay lu tax nga jonga ma man ko lii ñu commencé di ma nettali ne ma dañ koo dégg dañ koy ci kii bi si si Facebook bi xaw ma ak lan man leen meen lii lii lii lan la kalaam faareel ay wax yoo xam ne ba ci parole yi wax yi yàqal ñu lu baree bari ndax tey yaa ngi seetlu benn audio day am mu doy waar dañ koy lancante da ngay envoyé kii kee envoyé ko kee mu dem ca keneen maa ngi gis dem benn audio benn waay bu ñàkk jom ñàkk fayda xamul mooy bu xamul boppam ñaan koor gi nee na li ñu jot a woor yëpp dafa niil dañuy commencé waat xam naa du ñàkk am na ñoo xam ne jot nañ ko mais est que ñun ñoo bokk fu ñu dëkk pour wax na ni la li ngay jot tey comme mooy mondialisation bi rek xam nga États-Unis du fa yendu fii daf fii fanaan si fii lu fi fanaan dafay yendu ji foofu tey noonu la demee ci WhatsApp bi tey audio boo liir wala benn image bu ñu la ko envoyé léeg nga envoyé ko koo xam ne envoyé nañ ko ko bu yàgg noonu lañ koy paasantee mais loolu ku ci dul xalaat tiitoo est-ce que say wax yow say wax fan la yegg te du wax ju baax foo jëm ah léeg-léeg nga defe ni yàq xale bu góor bi la ngeen def kenn xamu ko de moo tax loo ci gis tey ñaata ay nit la ñu weer ci ay internet ñaata nit la ñu dugal foo xam ni dangay xool jël sa loxo teg sa gémmiñ ba ci ay parole ay wax góor ak jigéen di am rapport di sëy la ñu séq di ko wax ñu koy def ci youtube bi nga cliquer léeg nga yem ci dangay jaaxle yàq na jikko yi télévision moo amoon dangay yar sa njaboot duñ dem soirée ñu indi la soirée sa biir néeg sa sa biir saal xamul relation gur ak jigen dañuy wax ni jamono bu ñëk ba goor su musaan gis poj da koy def événement bu gisoon sër bu jigen bu bu naaw ba mu seen poj bi événement la koy def ndax lan gis na lu musul gis tay xalé jigen ni dara xalé goor yi bam faalé tay tay da ngay gis portable bo xamni borom daf koy codé xalé jigen yu bari dañu codé seen portable parce que bëgguñu seen yaay dugg ci seen mbir yeen affaire yi seen papa nonu man sama dom dama koy woné portable ma xol xol say message xool say whatsapp xool ñan ñoo nekk ci sa kii xool ba xam ñan ngay waxanteel boo ko dee def nag sa doom sax dañ lay jéppi dañ naan kii dafa métti mais loolu moo normal sunu yaay Mariam alayhi jamono bi muy nekk ak yonti yàlla Zakaria demul dikkul yonti yàlla Zakaria su musaana dugg ci mihrab bi fekk ko mu yor lu mu musul gis ci moom daf ko naan yaa Mariam mu ànnaa laki haza mariam li fan nga ko jele ñun suñu doom dañuy yor portable yu cher duñ leen ko laaj mais et étudiante buy jang amagul ndig portable mu yor ko do ko laaj fan la ko jele. te bursa mayu ko ko do ko laaj fan la ko jele kan mako ko may fan la ko jele bo tolo ci jangga, da ngay jang bëgg jang bëgg farantu xel mën ta japp ñaar bëgg jang bëgg jigentu xel mën ta japp ñaar te li yépp li ko yombal rek moy travers li nga xamni moy appareil da ngay gis nit ki rek laaj jox ko laaj ko numéro mu jox la ko mu ubbi page Facebook nga mën a dugg ci ay mbiram ngeen mën di jokkalante nga nekk Sénégal di wax ak koo xam ne ma nga nekk ba buuba nekk ca yi ngeen di jëflante yéen ñaar mi ngi dugal ci yow ay jikkoo gëm loola yoo xam ne yow kalan adami laa wujuda la danga nga fee nekk rek mais nekkoo fi moo tax loo ci gis ay xale jigéen yoo xam ne da ngay taseeg ñoom ciib ciib mel ni nekkatuñu sax ñoom ay sénégalaises xeeb nañ sax lu ñu doon te ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa boroom mooy famille yi ràbbalootuñu yàq na jikko yi waaye yombal na tamit li nga xam ne moom mooy njaaloo xam nga maa ngi lay wax ni bu njëkk ba da ngay gis koo xam ne bu musaan a gis pooj daf koy def événement mais tey ci télévision bi tey ci yenn site la góor bi nga xam ne mi ngi dund ba am 15 ans xool góor ak jigéen ni ñuy jëflantee ci néeg ni ñuy jëflantee ci lal mais nit nit rek la de nit dafa am ay appareil ay fil yu nekk ci biir yaramam dafa mel ni courant soo ko branché rek il mu yëngu bët benn appareil la boo xam ni lépp luy bàkkaar ci bët lay commencé moo tax benn kat ne fa nasratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaau xale bu góor bi bu jigéen bi buñ tasee xool ci xool lay commencé waa sama rak xool ko gis mu neex la fa nasratun fa btisaamatun ngeen muuñ muuñante xoolante fa salaamun sama rak fii nga dëkk na nga def wax yu ñak fayda am nañ nak seen façon waxin yoo xamni terme yu sof ay terme yu sof wax joxante rendez-vous daje nga mëna yor sa appareil daje ak xalé bu goor bi joxante rendez-vous sa yaay du yek kenn du yëg néna la bu ñu téléphone dañuy ci di yek ci kaw terrasse di génn ci mbedd yi waaw lan ngay bañ sa yaay gis ko lan ngay bañ sa papa gis ko lan ngay bañ ki nga nekkal mu gis ko mana nek ci bir neegam mom xala bu gor bi wala xala bu jigen bi ma ngay njaaloo ci bir kër gi ta papam yegul yaayam yegul ndax yonent bi mo ne won sallallahu alayhi wa sallam al ayna yani tasna yani wa zinahuma nazar neena na sax day njaaloo ñu lak beut naka lay njaaloo mu ne xana xol wallahi limay wax xam ngeen ko tegal sa film porno di xol yow xala bu gor bi deg sa tubay am na mu mel ku jigen ki tamit nonu ngeen balma nit nga dafa am lu la yàlla bindee am lu nekk ci yow am ay branchement yu nekk ci yow boo branché rek day am loo xam ne dafa koy yëngal dëgg la du ngeen wax dëgg la dëgg la démb bi télévision amul danga daan gis mag moo xam ne buñ ko mayee soxna du xam nan lay jëflante ak moom moo tax keroog ma doon laaj benn question est-ce que jànq bu góor amati na même boo deful l'acte yow sa bët njaaloo na ba tàyyi yow dëgg la de yonent bi moo ko wax nee na bët day njaaloo ñu ne ko sang bi bët naka lay njaaloowe mu ne xanaa xool tegal film porno di ko seetaan seetaan ko ba mu jeex te yënguwoo kon nga xam ne yow nekkatoo nit xel nga am nit nga dafa am nu la yàlla bindee dangay lekk xorom di lekk di naan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaañu baax ñi dañ daan yëge seen imaan ne bu wàññeekoo rek dañoo xool lu ñu warul woon a xool danga ci daan gis koo xam ne daf daan jékki-jékki di jooy buñ ko laajee lan ngay jooy mu ne dama yëg ni sama imaan dafa daif ndax lan benn awra boo xam ne gis naa ko ci jëmm ji nga xam ne moom mooy jigéen te nag soo moytuwul mbagg rek lay doon wala mu nekk ay catu nopp mais tey xam ngeen ne xale yu góor yi li ñuy xool du mbagg du nopp leneen ak leneen ak leneen looloog looloog loolu la ñuy xool xale bu jigéen bi moom waxuma ay waxam dañ la daan maye sa jëkkër di nga nekk lu yàgg da nga koy ruus kersa mais xale yu jigéen ñi ñime nañu góor baal leen ma de wallaahi dama koy wax toujours xale yi ñun ba ñuy nekk xale buñ ñu musaana yónni fu ay góor nekk doo fa bëgg a jaar dangay am kersa dangay rus wallaay tey xale bu jigéen bi boo ko yónnee kaay butig ba dina dugaat changé solo ndax mi ngi romb ñoom Moodu te bu rombee sax day changé doxin changé waxin ça va roule air yi ndeysaan ñi ngi seen biir kër yi yor seen appareil yi ñee ña ngay masturbé wu ñee ay xale yu jigéen ña ngay jëflanteeg góor defal nii waxal ma lii defal laa muy jaar ci ay fiil malaayika yi di ko bind ëllëg ñu war la koo tegal nga war a tëdd sa lalu sukuraat ñu war laa tegal film bi nga di ko seetaan est-ce que xam nga ni booy génn àdduna dañ lay tegal benn vidéo dañ lay tegal benn film dañ lay tegal benn écran sa kanam lépp loo mësa def ci lu ñaaw te tuur boo ko keroog di ko gis lépp loo mës a def ci lu rafet tam da nga koy gis waaw doo tiit doo ragal ñu tegal la sa vidéo nga koy xool loo ci gis ay fóonante góor ak jigéen ndax lan dangaa xew loo ci gis jaxasoo ak góor ak jigéen loo ci gis portable bi nga yor nan nga def ba am ko danga jaay sa bopp ba am ko fan nga jaar ba am loolu yére yi ngay sol ànd ak waajur yoo xam ne yëguñu dara la waykat ba waxoon waxal yur jaalil atfaali kamaalun isar taddaxu sadiyan naaqisaati est-ce que dinañ xaar ci njaboot gi ñu taxaw taxaw baatu taxaw day firi lu baree bari respecté sen jang respecté sen bop xam ñom ñoy kan wara tabax sen rew respecté sen ay wayjur liggéeyal aduna ba bo fi jugé ñu mëna dut baram ne li kat nit moko fi bayyi mu ne est ce tay ñu ko sentu ci xalé bu bu dañu won namp ci ay wénu yaay yo xamni ni sàggan nañ ba wén bobu genn ci biti ba weñ tong ci ba sàggan nañ ba jumbax bobu genn ci biti bañ def ca jaaro ba nga xamni ni yu dot ci mëna tok nitu yalla dot ci mëna dugg bobu biir ñu tegal la film bi ngay seetaan di gis ay wax yu ñàkk fayda ay wax yu dof des fois dama naan lii ay waykat yoo xam ne duñu dara génne ay paroles yoo xam ne du dara yow nga dem ba nekkoo dara topp loolu nga xam ne du dara dem ba yàlla def la dootoo nekkati dara tey loolu la ñuy dund gis nga am na façon boo xam ne soo ko bëggee dund làqatoo sa portable yi ak nouvelle technologie yii كان من نكو بنا خم ما بول فاتني وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بول فاتني ملائكة ينين كوي آرستري تنيوم دنيو آرستري بامو خوصو دي ولا نيو نان كسد بي كي بي دفرير كسد من وار بي كسد بي نكو تن لكوي تغال غي خول كون خمال يو خالة بو جيجين بي في غي دوغو لين غي دف سا أباري بي لن غتي لغي لول مموغن بنن بي تلاي مجي موينك دمنا بدين دي كرسة تي خالة يي kersa amatul jom ji amatul kersa gee ñu réer wala mujjug jamono moo di ngan gi teew ñàkk kersa xale bu jigéen boo xam ne dafa doon yaru du sigg xool nit mais comme am na appareil lu nekk nga ca xool naa xool a xool ba léegi amatul ndoxu bët bu sa yaay nee benn nga ni fukk ay influence la xamoo bu sa yaay nee benn nga ni téeméer dem ba démb li nga doon rus tey danga koo ñime xale jigéen yi ak ñëw dëgër fit du ñëpp nag xam naa yéen bokk leen ci xam nga dëgër fit mooy joxante rendez ak góor gu nekkul sa boroom kër tase ak moom dugg ci néeg tëj bunt même bu ngeen deful dara da nga dëgër fit yow ana jigéen nag fekki góor xale yu góor yi léegi gis nga tàmmal nañ ko seen bopp ba bu ñuy jëflanteeg yow ñaar yoon la ñuy ñëw sa kër na la mais seet si ma bu njëkk ba loolu amul woon danga daan toog ñu ñëw seet si la dox si la moo tax ñuy wax dox ànd doxaan dem ànd ak kenn ngeen dem waxtaan waxtaan ak kilifa yi ñu may la nga dugal sa kër mais tey xale yi mayante nañ te demuñu jàkka ja ñu mayante nañ ndeysaan yow amagoo boroom kër te xamuloo ndax kooku dina la takk ngay fóonanteeg moom di ànd ak moom di dem plage bu ñu waxee nga ni diw génnal du yàgg nga xool sa portable wala portable am nga bett ko am na ci beneen jigéen na ngi ci di gis nga message am nga meroog moom bàyyi ko dem ci beneen góor mu dem ci beneen jigéen mooy série film yi ñu lay tegal rek film bi bu ñu la ko tegalee ñaar ñii dañoo ànd ba mu yàgg ñu xulloo am na ku jigéen bu dox seen diggante film bi di dem di dem li muy bu fi muy jeexee mooy ñoom ñaar après ñu àndaat moo tax bu àndee deux mois lay am ñu tàqali ko tey xale jigéen ñi loolu la ñuy dund Sistem bobu motax sey sax yagatul ndax yow mi jigen xamato sa bop mom motax nouvelle technologie day wane katanu borom bi subhanahu wa taala day wane xarenté bi nit am ci xelam day wane capacité yi nga xamni nit am nako. mo taxone mune mu ne wastaamarakum fiiha dama leena wacce ci aduna pour ngeen liggey ko ndax am ngeen xel mu ngeen meuna defere lu ne yalla mom mo leen ko jox mais ndax pour mu la ta na lu bari li ci portable joué nañ ko ay théâtre portable yàq na ay diggante nouvelle technologie ñàkkloo na nit kersa weer na nit li gën a métti weer nit weer nit mais nit kiy def lu bon moom la engage mais dangay jékki-jékki rek tey gis nit koo xam ne def taatu ne ñu dugal ko ci net bi mais ñun ñu koy gis ñun suñu nuurul imaan lay wàññi gis nga xool lu bon xool lu bon day dindi ngëm yàlla ci nit ci xol moo tax Ahmad ibnu Hanbal keroog bi muy wax ak Shafii lan la ko wax maa ngi gis ci sa kanam gi benn leer boo xam ne mi ngi ciy folote fexeel ba bul ko fay ndax li koy fay mooy ay moy ak ay nekk ci loo xam ne yàlla bëgg ko nit dangay góor góorlu ba doo fay leer gi nekk ci sa xol am na ñoo xam ne seen xol am na benn maladi boo xam ne moo ci dugg muy raan xam ngeen raan raan feebar la xam nga lan mooy joxe raan bàkkaar kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun raan mooy xol boo xam ne daa dem ba xomaag ba nga xam ne soo koy waar du la déglu ba nga xam ne daa topp yi nga xam ne moo xew te booy dem doo ko yóbbaale ba nga xam ne système bi daf koo fëkk ba nga xam ne amatul waayu amatul conscience mom dañ koy manipuler dañ koy wax defal bul def moy la waji bindon ya khawmu la tatakallamu innal kalaama muharramu namu wala tastayqizu ma faza illa nuwam wa taaxaru an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu ñu ko duggal ci bir yi nga xamni mom lañuy utiliser non bi da tok fe ne ay yéen julit ñi bu len waxati de nopi len ñun ñoo len di waxal motax luñu xewal rek mom ngay xewal tay yow dootoo wax yow yow ñun ñoy xawal ben parole rek mom ngay jël diko waxe ñaata ay baat lu ñuy génne ay baat yoo xam ne doo da ngay da ngay reetaan da naan lii kenn xamul lan la ay parole yoo xam ne xamuloo fan la jóge yaa xawmu laa tatakallamu innal kalaamu muharramu amatu leen droit wax lu baax yéen toog leen rek ñu leen di jox ci télévision bi ngeen di jël luñ leen indil jël leen naa mu naamu wala tastayxizu ma faasa illa nuwamu nelaw leen bu leen yeewu de ñun ñoo leen di defar rek yéen daal toog leen ñu leen di manipuler rek bu leen yeewu bu leen utiliser seen xel de lépp ñoo leen koy xalaatal modèle yi ngeen di sol ñoo leen koy jox li ngeen di jàng ci école yi programme bi ñun ñoo leen koy tegal ñun ñooy préparer ki leen di jiite ñun ñooy defar imam bi ñàkk fayda sax teg ko ci jumaa ji léeg-léeg ñoo koy jox loo xam ne sañatul wax dëgg naa mu naamu wala tastayqizu ma faza illa nuwamu a axaru an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu toog leen nag bu leen xalaat rek toog leen ñun ñoo leen di xalaatal ñoo leen di indil objet yi ngeen topp ci rek di kërti kërti ñun ñuy liggéey di avancé yow nga yendu ci internet yenn sa portable sa journée niil te amu ci loo ci def loo xam ne lu neex yàlla la ñoom noonu la ñuy dunde ak ñun tey portable mun na defar lu ñëw rek mun na defar xew tey daa xewul woon rek yu bon daan na am de motax ba ci ba ci media ba ci media organiser sa bop ba amna émission yo xamni soko mëne moytu nga moytu ko bul ko déglu émission bo xamni ne nit la lo ci déglu émission bo xamni ne nit ak nit ku ñak fayda def sa lu bon ba pare ñew tok naan ba ma def la may laaj seen xalaat xalaatu kan ngay xal ngay laaj do dem julli ñaar rak nga tu sa ak sa borom bima ci mujjé dama jaxlé dem sa di tëdd koo xam ne sa tante la dem ba nga xam ne yow virus boobu dugg na ci yow nga ñëw toog ci rajo naan sama tante laay tëddal nan laa war a def léegi ñun luñ ci xam ñun yooyu émission ku ko mën a daw nanga ko daw nit day yore noppi garmi di dégg loo xam ne daf koy jëriñ ba ci ba ci émission booy seetaan bu la amul njëriñ bul ko xool dañ la koy laaj xamoo temps bi nga toog dañ la koy laaj ëllëg temps bi dañ ñu koy laaj sa dund dañ lay laaj lan nga ko passé sa jeunesse dañ lay laaj lan nga ko passé lépp dañ la koy laaj nañ yor noppi garmi di déglu lu baax nit soo xëyee ku nekk da ngay bëgg avancer ci sa wàllu àdduna jéemal avancer noonu ci sa wàllu jikko soo xëyee déglul alquran tuddal yàlla déglul lu baax loo xam ne daf lay jëriñ jëfandikaay yi pour man loolu rek la war a jëriñ mais lu dul loolu xanaa li nga xam ne di nga ko liggéey mu jëm sa wàllu njaay sa wàllu business ak yooyu mais lu dul loolu am na site yoo xam ne bul ci dugg ay franc-maçon ñoo ko moom gis nga léeg-léeg nga gis franc-maçon mu prépare waayam ba émission diine am mu dugg loo ko ca wax loo ko ca loo xam ne danga naan kii est-ce que jullit la jullit la mais dañ ko préparé jullit la boo xam ni dañoo yàq appareil mbaax bi nekkoon ci moom ba appareil mbon rek la dese moom moo tax il ñu yeewu foo ñu ràññee foo ñu xam foo ñu muus sa portable bi soo xëyee def ci li nga ci war a def soo paree nga teg ko te concentré wu jàng am na koo xam ne sax concentré wu ndax portable am ah fukki far ku nekk di la envoyé message nga bëgg koo lire di nga lire kay téeméeri coro ku ne nga bëgg a xam lan la war a waxtaan ak yow di nga ci dugg nañ leen organiser suñu bopp yar suñu bopp xam bu baax li ñuy def ak niñ koy defee àdduna ñetti fan la démb weesu na yaa ngi ci tey suba xamuloo naka lay demee benn bindkat nee na bëri na ay jeunes yoo xam ne yaakaar nañ seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko ci marché ba di ko jaay xamuloo ndax perkaal bi ñu defar ci usine ba ndax yow sa juróom-ñaar ci la bokk wala déet xamoo ko de wóoru la de nañ ko ci usine ba waa ji jënd na ko grossiste bi teg na ko ci marché ba di ko jaay xamoo ndax yow bopp bee métti biiramay métti daa accidenté deux daa nangam xamoo ndax danga bokk ci ñu ñu cay daggal wala déet doo rek la sa bopp yàlla dafa bind doomu aadama tàggatal ko lépp lu nekk ci kaw suuf mais bindul doomu aadama tàggatal ko li nekk ci kaw suuf pour mu moom doomu aadama mais nit la jox xel mu xam li nga xam ne moom la indi nan la ciy demee kon TIC télévision ak internet nouvelle technologie dama ni nit daf ciy xame kàttanu borom bi subhanahu wa taala mais warulaa yàq xale yu jigéen yu bari yàqu nañ xale yu jigéen yu bari seen ndaw seey na ci seen yaram plaisir bu ëpp te amago borom kër day tax sa ndaw day seey ci sa yaram ñi jàng an mu naf sa xam nañ li may wax dama ni jëflante góor moo xam da ngeen a jege moo xam da ngeen a sori yoo ay wax yoo xamante ni bii ak ay jëf ak ay geste nga nekk ca mën nga am borom kër du la fekkee nam la war a fekkee lan moo ko fi jaar ta kii def noonu bëggul ku ko def rakam de mais yow yaa ñàkk fayda moo tax mu lay def loolu loolu foo ñu ragalaat yàlla jigéen na dellaat delluwaat ci keppaar gi nga xam ne islaam foofu la ko teg islaam bi mu laataa ñëw jigéen nekkul woon dara islaam moo ko def dara ba tey mu mën a def dara kon jigéen na taxaw xam boppam moom mooy kan xale jigéen yi dangeen di transparent ci seen kanamu jur yi daa métti nga jur sa doom bu jigéen ba pare mu am jikko yu nekk ci moom te yow mi yaayam musoo mel noonu xanaa gisoo sunu yaay Mariam keroog bu mu gàddoo yaay Insa lan la ko seen waa dëkk wax Mariam kenn mësul woon a xam sa papa mu yorom geñoo jigéen bu mu jëflanteel ku mu gis xam lu mu woddoo sa yaay tam ku mënoon a sëy la ko rafet nu doon sëyee la kon tey fan nga jëlee doom ji noomeel dañ koy delloo ci sa wayjur soo baaxee dañ naan wayjur ba la soo bonee dañ naan wayjur ba la kon il faut ngeen la seen bopp ba ñu gërëm seen wayjur yi paa ñu mbëj paa ñu xarab leen man dama koy wax élèves dama leen di wax ne man su may jàngal xale bu jigéen wala xale bu góor mu am jikko yu nekk ci moom dama naan mais kii na ma yàlla baal kii yaayam nan la mel immédiatement sama xel ci loolu lay dem et pourtant yaayam sax mun naa bañ a mel noonu mais deret moo fort moo tax yonent bi tànnaloo góor ne la tànnal borom diine tànnaloo góor ne la yow tam góor dañuy tànn jikko ja dañuy tànn diine ji ndax ñoom ñaar bu ñu àndee am doom ji mucc ayib kon defe naa ne li ñu doon waxtaanee gënu ma leen ko xam xam ngeen ne nouvelle technologie moom mi ngi yàq mi ngi defar kenn ku nekk na dugg roq mën a kanaam xool man sama appareil bi lan la ci liggéey lan la ma apporteel lan la ci def li xew nga xam ni maa ngi ci àdduna àdduna dafay dox ñu ngi ci vingt et unième siècle nouvelle technologie am na nga xam ne communication bi dafa yomb léegi lan laa ciy communiquer fan laay dugg fan laa ciy yem fu mu ciy commencer defe naa loolu ku nekk war na koo xamal boppam jarul woon sax waxtaan mais da koy jar nag jarul woon waxtaan mais daf koy jar ndax ku wéet xam yow yaay kan surtout xale jigen jigéen ñi bàyyi leen xel sen bop da ngay na cher jigéen dafa cher jigen du bazar de bopam jigen du lambar lambari jigen du nek ko xam da fay noy bop jigen da fay xam ni mom œuvre borom bi la subhanahu wa taala ndabam la bu len ken nax bu len ken dévier bu len ken jaay yen tam bu len nangu jaay sen bop yàlla dem bañu jaay xale bu jigen bi daf xale bu jigen bi da dan mer bam don wax wala tukrihu fatayaatikum alal biraa in aradna tahassunan libtigaa mardatillah démb dañ doon jaay xale bu jigen bi muy mer yalla di addu di wax bu len len def lo lo xamni bëgguñu ko ndax bëgg sangewu mais tay jaay sa bop ngir portable jaay sa bop ngir cheveux jaay sa bop ngir gas jasneer jaay sa bop jaay sa bop ngir ben bag ben chaîne dara jaru ko fi kon yam len fi len islam yam lo lolu mooy deug ngeen am écart ak tangku ñi tank goor takku amal takula takula amal écart ak mom goor ñi dañu mun naxaate da ngeen balma dañ lay gëmloo loo xam ne nekkul liñ la wax wax nañ ko sa téeméeri moroom rek leer sa bopp xam yaay kan bañ maye la nga sëy mais kii xamal ni jumtukaay la yow yaa koy utiliser mais moom warulaa utiliser salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.